ko ci doomu adama ba tay ji ñuy waxtani science àggagul ci am capacité bu toll ni mëna défar defar deret sa bu ñu jaxlé dañuy woté ci dérèt di yalla defoon ci doomu adama yi ñu man ci tang man ci sëri ñi nga xamni ñoy yitté yittewoo lolé nak war nañ ci waxon da waxon ni sun borom insha ta'jila amrin kana sha aw sa ta'jilu yabda ila al-hilm nee yalla rek moy ki amé katan go xamni sa bu mbir ñëwé mu bëgg mu gaaw mu daldi gaaw su fekkee du ko wutal app goo xam ni daa bëgg mu ag ja app booba ke mënta te mu àgg ca moo tax bi aduna bëpp àndee bu fi jëlé corona té app bu jotagul kenn ku ci nekk jëm nga la nga man waye waaye ñu ko fi jëlé ma tax señtu ba mo kenn kennal boromam da waxon ni laysa yakunu fi jamil alamin muassirun fi asari ma za al yaqin nee na lu ngeen gis nit jëf ko donte ci zaahir teg ngeen ci seen bët sax mu mel ni moom moo ko jëf nee na dëgg dëgg mbir ma moom jëfu ko suñu borom a ko jëf lu mu ci suñu borom moom sëñ Tuubaa tawhiid ak ko may moo tax boo liggéey kuy tudd sëñ Tuubaa tudd bokkaale wala ku tudd ab murit tudd bokkaale daa desee gëstu la sëñ Tuubaa bind huwa la si lam ara xayruhu wala arahu fi shay'in hada wana wala sëñ bi nee na bi ma feeñee jamono ba ñemab làqoo ci seen i mosuma gis ci menn mbir ku dul yàlla te lu ma gis ci mel mbir ku dul yàlla kon nag yàlla moomu war nañ koo delloo woon njukkal ndax corona indiwu ko fi woon ngir rek mu jàll waaye du ko indi woon ngir waaraate ngir ñu xam ni moo amee kattan boo xam ni jaamu ko daa am njariñ ñàkk koo jaamu du jur lor mooy ki nga xam ni ñëpp ko aajowoo lépp ko aajowoo kenn si dem bàyyi ko ginnaaw te moom du aajowoo kenn mbaa lenn di def loolu kenn rek la muy bu ko defee kon noonu koy ñaan moom yàlla mu nangul ñu mbooleem sunu jaamu rawatina weer wi ñu nekk muy asexlu ramadan yàlla nañu ko nangul te fayal na ko na koor toll xamoon ndax koor ki ko def ba ngoon jot mu dox ku dul yàlla mi digle koor xamulu pay ki toll mbooleem xeeti ibaadaat yi ngeen di dégg téere yi jàngale ko moo xam julli la moo xam zakkaat la moo xam sadaxaat la moo xam nawaafil la lépp malaaka yi am nañ capacité bu toll ni nga def ko ba noppi suñu borom jox leen ndigal ñu jël machine calcul calculer ko xam jàmm bi ko def la ko suñu borom war a fayee ci mbooleem xeeti ibadat yépp nag waaye ila saw ba mu des koor koor moom amul menn malaayika mu am xam-xam bu toll ni xam jàmm bi woor ba ngoon jot mu do lu ko yàlla war a fay ci ak pay amul menn malaayika mu xam xam-xam noonu moo tax suñu borom li nga gis mbër yi suñu mbokki mbër yi nga dégg leen wax ni combat maa ko jëlal sama bopp ngir leeral ci combat bi leen ñor noonu ci koor yàlla moom xamaa daal yëpp waaye dani koor maa ko moom maa koy fayal sama bopp asawmu lii wa ana aj si bi maa ko moom maa koy fayal sama bopp ki woor ba ngoon mu doge benn tàndarma bu lew téere yi nee dañuy ful rakk yu mu julli ñeenti téeméer ko dogee tàndarma bu leew ci weeru koor ñu ful sa rakk yi ñeenti téeméer moo tax kenn amul capacité bu toll ni xam ki woor ba ngoon lan la ko suñ borom war a fayee ci xeeti pay li gën a rëy ci lu suñ borom di joxe ci ak mayam mooy ngërëmam mooy yàlla xool la ni la jëwriñ jàng nga ni labbayka la jërëjëf gërëm loolu nit ki mën naa am ay maqama ak i daraja ami tomb ak i leer ak i sekkere ci suñu borom te du am daraja yàlla bi ko gërëm naa la leen gis yàlla ku mag koo xam ne day am ay mbir yu bari ko boromam may te fekk làqul ngërëmul yàlla waaye ñi woor te woor ni ñuy wooree ñooñu suñu borom moo leen war loolu ngërëmam suñ tubaa nee na shahida xaaliqul wara li fi ramadana bi ridaaul xaadimi mooy ñi war moom yàllaa seede ni dina leen jox ngërëmam moo tax koor amul lenn lu mel ni moom téere yi wax na ni yàlla bind na malaayka mu nekk arsh xam ne day wóor guddi di wóor bëccëg am na sax téere yi wax ni woor gi muy woor guddi ñun moo ñu tee woor guddi waaye bu fekkoon ni du wóor gi muy wóor guddi kon ñun dañuy wóor guddi wóor bëccëg malaaka moom nag dafa nekk ay malaayka yu bari saa bu mu koor day dem ci suñu borom ni ko gars yi de um nan tey suñu borom ni ko yëg naa ko mu ne ko li ma fi indi mooy nga jéggal ñi um ñëpp nee na suñu borom ko jéggal naa ñi um ba jéggalaale sax ñi umul ngir yàlla Baye Moussa Ka nee na suñu borom bind na am malaayika maa nga fa faaras day wóor guddi wóor bëccëg ya moo nuy teree wóor guddi ngir kooram dem ni kon guddeeg bëccëg la ñuy def koor ga bis bu ñumee mu lal dem fa yàlla ni ko nga jéggal gaa yi woor ngir yàlla mu ni ko jéggal naa ñi woor ngir yàlla ba jéggalaale ñi wumul ngir yàlla mooy gaa yi leen jox ñam yu sell ak ndaxo yu teey di sàkk yoolub yàlla ñooñu nag mën nañ leen a tuddee bay fan gis nga ñor bu suñu borom bëgg gu mu bëgg koor ak yitte jum ko jox tax na bis bu ñumee koor suñu borom dina tànn cent mille personnes yoo xam ni licencié woon nañ leen ba jox leen seen visa sawara du ñoo xam ne dañuy dund ba xam xamuñu àjjana lañ jëm wala sawara lañ jëm de ñoo xam ni seen dem sawara leer na ban téye seen visa wu dem sawara saa bu ñu umee koor yàlla dina tànn ci ñooñu cent mille personnes téeméeri junni nit ci darajee weer koor bis bu nekk buñ xëyee ci deuxième def ko ñaar téeméeri junni yoo xam ne sawara la waroon dem mu lëmbu seen visa sawara jox leen visa ay ajjana ci darajee weeru koor te noonu la koy toppee ba koor gi jeex ba fanweeri fan yu mat nga xam ne kon 30 ci jéggal 3 millions personnes yoo xam ne ñoom ñëpp sawar lañ waroon a dem suñu borom jéggal leen ngir darajee weeru koor koor bu nekk yàlla dina tànn 3 millions ci ay nit ñoo xam ne sawar lañ waroon a dem bu jéggal leen ngir darajey weeru koor yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee koor ku ko fekkee loo amee ci ay bàkkaar lu mu bari bari bari bari boo taxawee ni nga war a taxawee ci koor gi bu nee weer wi feeñ na tey suba la ñuy wari noonu la say bàkkaar bi geexe man saa ma saama sëhru ramadan imaanan waxtisa xufira lahu ma taxaddama min zanbihi ku ko woorte woore ko ni nga ko war a woore li ñuy njëkk def ci yow mooy li nga amoon ci bàkkaar ñu rékk ba mu set nga xam ne booy dox di wari ji di julli ji lal sa sijaade wax coowee mën ngaa wat ni amatuma benn bàkkaar loolu nag wenn weero ko man ci weer yi muy weeru koor mu am bis bu am solo bu ci nekk ci muy weeru koor muy guddi gi ñu nekk di guddi lay laylatul xadri laylatul xadri maa ngi wax kii bërki démb ni ko publicité bi yàllaa ko defal boppam publicité wu laylatul xadri suñ borom moo ko defal boppam ni mu ko defalee boppam mooy عباده يي نين ديغ ييب سون بوروم واخنا كو تي القران وايي فامي نيك تي القران داي سوري سوري غو خامني خاجنا فاو غا خاوا يير توتي غير مان تي حق وايي ليله القدر نا بغ بو كو يالا بغ اك نيور كوم كو نيور مو وال مو ديف كو تي ساري نيت كي خاني موسى علي و غات غات nga dégg ina anzalnahu fi laylatil qadr lo gatt gatt ak dégg rek di nga dégg ina anzalnahu fi laylatil qadr wala sax nga mokal laylatul qadr khayrun min alf shahr suñ borom wax ci léegi Ahmadu wax na ko nee na guddi la goo xam ni yëmul ak juróom-ñett fukki ak ñett de suñ borom dañuy xayrun min alfi shahri guddi gi moo ëpp doole juróom-ñett fukki ak ñett ak ñeenti weer alfu shahri loolu lay teg mooy quatre-vingt-trois ans quatre mois mooy tolloog baatu alfu shahri junne weer suñ borom wax ni genn guddi gi ku ko ci jaamu mu jox la ci pay bu ëpp juróom ñett fukki at ak ñett ak ñeenti weer yoo xam ne da nga koo saxoo jaamu te mu nangu la jaamu génn guddi bi loolu lay bësi ki jaamu yàlla juróom ñett fukki at ak ñett lan ko ci war a fayee ki màggal guddi gi laylatul qadri ñoom ñaar ñoo yem ak pay wala sax ki màggal guddi gi ëppale ko pay moo tax guddi gi amul genn guddi gu mel ne moom li tax yàlla jox ko xeetu yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu tax yàlla jox ko yonent bi ak xeetam te xeet yi jiitu woon amuñu woon guddi laylatul xadri mooy yonent bi li tax yàlla tànn ko yabal ko ci ñun yàlla nee na ko lenn rek tax ma yabal la ci ñii dama leen a bëgg yërëm leen a rek moo tax ma tànn la yabal la ci ñii wa maa arsalnaaka illaa rahmatan li tax ma tànn la yonent ci bari ma yabal la ci xeet yu man man na moo xeet yu ma yërëm leen moo tax suñu borom waat na waat na moom yàlla daan ne maa ngi giiñ man suñu borom ni yéen defal naa leen xéewal ñu ne ko ndax bët yi ñu jox la mu ni déedéet ndax nopp yi ñuy dégge la suñu borom ni déedéet ndax tànk yi ñu jox ñu ci dox la suñu borom ni déedéet ñu ne ko kan xéewal gi lan la mu ne tànn gi ma tànn rasulullah yebal ko ci seen biir laqad manna allahu ala almuminina istaasa fihim rasulan min anfusihim tànn gi ma tànn rasulullah yebal ko ci seen biir xéewal la goo xam ne xañ na xamu leen ko waaye man yàlla mi ko def xam naa ni mu toll xeet ya jiitu woon dafa am ku ñuy wax samoon alxasi samoon dafa xare ci yoonu yàlla junniy weer yàlla da ko mayoon kattan mu xare ci yoonu yàlla junniy weer amoon kattan goo xam ne xare mi yëpp yéefar yi mënuñu ko war a gañe léegi nag bi yéefar yi jaaree ci ay côté mënuñu koo gañe ñu jaare ko ci soxnaam nga soxna day jige borom këram jige goo xam ne lu ko bëgg def def ko biñ ko jéemale ñoom yéefar yi mënuñu koo gañe dañoo jaar ci soxnaam dig ko alal joo xam ne dam ni ko boo fexee ban jekku ko dinañ la jox alal joo xam ni dund yaay ëppale alal ci dëkk bi la waaye dëkk bi kenn du la fi gën a woon wax na ne soxna si daa bàyyi ba guddi ba muy nelaw moom samoon mu takk ko ba mu dëgër waaye samoon daa amul kattan bi mu yeewoo daal fuddut rek bu mu ko takk woon yëpp dagg mu ne ko waaw lii nga def ana jublu soxna si ne ko u jarri bu xuwataka damay natt sa kàttan ba xam nu sa doole toll jigéen daa bari pexe mu daal ne kon baax na mu dem wax ko yéefar yi ñu jox ko cher càll càllale yi mag yi ni ko kon ten koo takke ci gii mu takkaat ko bàyyi ba muy nelaw ci suba gi mu takkaat ko ba mu daj waaye bi samoon yeewoo tamit daa fuddutuwaat rek chaîne gi mu ne ko ana loo jublu ci li def nga ko démb mu ne ko ko jarri bu xowa taka faqat damay nax sa kattan ba xam nu sa kattan tol wax na ni foofa nak setan dañuy la fegi dal ni len da ngeen koy laaj soxna ci laaj ko mom kattanam gi ana fa ko yalla def ci mom soxna ci bari ba guddi mu ne ko papa damay laaj sa katan gi fa ko yalla def mom da yoon ay raste ñeent raste mu ne ko man de sama katan gi ngi ko def ci sama raste yi ci la def sama katan gi wax na ne soxna si bàyyi ba muy nelaw mu jël rasta yi mu yoroon takk ko ci bopp bi ba ci baat bi jëlee rasta yi xëcc ko takk ko ba ci óom yi bi bëgg a jug fuddutu fuddutu mënut a jóg mu dem wax yéefar ni leen jekku naa ko yéefar yi ñëw jàpp ko yóbbu ko fañ ko bëgg a yóbbu teg ko mettit yoo xam ni neexut a nett li waaye bokk na ci dagg nañ ay cëram dagg bakkanam dagg gémmiñam dagg ñaari baaraamam di joor ak baaraami càmmoñam ak yeneen yoo xam ne ñuux te wax sax ci am rajo Samson nag mujj sonn lool ginnaaw bi mu ñaan suñu borom yàlla dolliwaat ko kattan yàlla delloowaat ko kattanam xista bi nag bi ñu ko nekkalee ci kanam yonent bi ak saxaaba yi dafa triste ci ñoom ba mujj ñoom ñëpp ñu maase di tuur ay xéwal di jooy ngir metti bi mu metti wax nañ ne foofu nag yonent bi xam na Samson li ko yàlla war a faye ngir li mu daj yàlla ak wax na ne boobu la yonent bi dalal ay loxom daan ne yaa rabbi jaxalta ummati aqsaral ummami amara wa aqadaha amala yow yàlla dangaa def sama xeet wi ñu gën a néew lu ñuy dund loolu nag moo waral seeni jëf dina tuuti nee na suñ borom ni ko jox naa la génn guddi goo xam ni buñ ko màggalee dinaa leen ci fayee lu ëpp junniy weer yooyu ma fayoon sàmmoon alxasi genn guddi googu mooy guddi leen bu xadri xam ngeen ni mboolem xeet yi ñun ñoo ci gën a gàtt aw fan mboolem xeet yi xeetu yonent bi ñun ñoo ci gën a gàtt aw fan maam Adama dund na mille ans junni at te bi mu fi bàyyi ko bàyyi na fi ci aw xeetam ñu ko mag kon ñooñu daan gudd aw fan yonent yàlla noo dund na neuf cent cinquante ans alxuraan nee na wa laqad ila nuuhan ilaa xawmihi fa labisa fiihim alfa sannatin ilaa xamsina am faqasumu tufaan wa hum salimun junni ak yu manque juróom fukk la woote ci ñu topp yàlla gëm ko wóolu ko téere yi nee naan quatre-vingt-trois personnes la ko gëm ci diiran ah, junni at yu manque juróom fukk te mu fi bàyyi ko bàyyi na fi ñenn ci aw xeetam kon ñooñu guddul nañu fan yàlla wóor dundoon na deux cent cinquante six ans juróom ñett téeméeri ak ak juróom fukk ak juróom benn yonent yàlla sooy bu dundoon na huit cent quatre-vingt-deux ans juróom ñetti téeméeri ak ak juróom ñetti fukk ak ñaar te ñu fi bàyyi ko am na ñu fi bàyyi caw xetal kon ñoom dañoo doon mënoon a gudd aw fan ñun nag ñi gën a gudd aw fan ci ñun mooy ñu ñu téeméer ak kon bu yàlla bëggee ëllëg ñu ëpp mbooleem xeeti ay tuyaaba faw mu keree ñu gudd yu mel nii. xam nga génn guddi taxaw taxawu 83 ans 83 bu ñu ko multiplier woon par 5 nga xam ni fukki laylatul xadri boo ko fekke woon teewe yëpp ba mu jeex daanaka dafay am at yi yonent yàlla noox. juróom-ñett fukki at bu ñu ko multiplier par 10 daanaka noo da am at jëm amoon waaye daanaka da ngay am at yu toll ni yëpp aadama moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam tawfiix ji ko yàlla defal mooy tànn gi mu ko tànn yabal ko ci xeet yi nga xam ni bu lu woon moom ñun suñu dara du baax fii ak fa lu jëm guddi gi suñu borom wax léegi Ahmadu wax na ko tànn zëlul malaayikatu tànn zëlul malaayikatu mooy malaayika yëpp dañuy wàcc malaayika yëpp dañuy wàcc bu ñuy wàcc jibril alayhi salaam moo leen di jiite ak mikail israfil asrail ñoom ñooy jiite malaayika yi wax na ni fu nit toog ci guddig laylatul xadri di màggal laylatul xadri malaayika dala fa fekk jox la loxo mboolem fu ab jullit nekk moo tax sax baatu xadar am borom xam-xam yi ñu koy firee xat ngir suuf sëpp ci guddi gi ay malaayka lay doon buñ leen gisee ak buñ leen gisul téere yi nee nañu foo ab julli nekk di màggal guddi gi def na la fa fekk am malaaka dina la fekk jox la loxo ñaanal la ngërëmul yàlla ak xéewal ak muccam ba mu des ñetti nit ñetti nit rek la malaayka yi dul jox loxo ci guddi gi te du leen ñaanal yërmandaay yàlla du leen ñaanal xéewalam du leen ñaanal muccam mooy kuy naan sàngara wala kuy lekk yàpp mbaam wala kuy diwoo parfum bi ñuy wax saafara ñett ñi rek la téere yi wax ni ñoom la malaayika yi dul jox loxo ci guddik laylatul xadri guddi gi xam ngeen ni mbooleem li war a am lépp ci at mi bu yàlla joxee ndigal malaayika yi ñu war a wàcc ci lañ koy indaale mu doon ab dossier ñu ci war a am alal jigéen ñi ci war a sëñ góor ñi ci war a am ñaareel ñi ci war a tabax kër ñu war a añ màkka ci élèves war a am bac ak yi war a am bifam e yëpp bu yàlla di yebal malaayika yi da leen di jox lim atte ci at mi lépp ñu indaale ko ci guddi gi alxuraan nee na fiihaa yufraqu kullu amrin hakimin lépp lu yàlla dogal ci at mi rek malaayika yi bu ñuy ñëw dañ koy indaale ñi ci war a tukki ak yeneen yi nga xam ne ñëw ta wax waaye lépp loo xam ne dina am ci at mi ci guddi gi la ko yàlla dogal jox ko malaayika yi ñu indaale ko fii nga xam ni fi la ñuy guddi gi leen du xadar guddi gi xam ngeen ni ci lañu ñu wàcc alxuraan téere boobu nga xam ni benn téere melul ni suñu borom nee na bu doon wàcc ci yonent bi mu fekk ko mu taxaw day toog ngir diis bu mu diis bu doon wàcc ci ab aaya nga toog ci wetu yonent bi mu teg la tànkam boo xëccul sa tànk tànk bi day damm suñu borom nee na ba ma ko wàcce woon ci montagne montagne bi day seey ba ruy ngir ragal bu mu ragal boromam law anzalna haazal qur'aana a jabalin la raytuhu xaashi'an mutasaddi'an min la benn téere melul ni moom 1300 ans bi mu wàccee ci yonent bi ba léegi junni ak ñetti ba léegi amul benn téere bu mel ni alxuraan yàlla nag moo wax ci alxuraan ne dinaa tànn ñenn ci sama jaam ñi doon leen téere bi su ma awras nal kitaaba lazina yàlla téere bi yonent ko jox ci sama jaam ñi ñenn doon du la feeñ fii ci Mbàkke ni awrasani rabbi kitaaba lahi fadlan wala ilaha illa lahu la yàlla waxoon ci alxuraan dina doon jaamam yi téere yi man mii doon wax moo tax sëñ Mbaye Jaxate ni ko ngëneeli adduna ak àllaaxiraa ngi fi yow ku bëgg jiitu moromam na ñëw fekk si la kuy kër këree ko wutum mbaaxet ci waa jola mooy du am la muy kër këree ko te si wuy yaa woote ngir yàlla ñun ñoo ngi ku gantu torox te yee te wuy si ku lay weddi tey sax ak ku lay gëm a yam kan ne fi wax penku ak wasoo topp nañ la boroomi la fi raamal ak taxanal sa diina wér na ku koy ramkaani la xëfu la moo tax xam ko mu xam moom sëñ bi njariñ bi nekk ci guddi gii moo tax mu koon ko ci bu ngeen ko gisee bi sangam weer wi xam ngeen ni bi sangam mooy leen tu xadri mooy lekk su niyatun sa ëkku rayas leeral ko ngir guddi gi xam na importance bi ci nekk ak li ñu mën a jural moo tax mu bañ yi wóowu ci ñun du tënkoon ñu di ko topp ba fii xam ngeen ni ixtilaaf saa bu amee ci lislaam ñi gise ko nii ñii gise ko nii ñun la ci sëñ Tuubaa wax lañ gëm saa bu ak wuute amee ci lislaam ñu ni lii la ñii ni lii la la ci sëñ Tuubaa wax lañ gëm ndax dafa wax ni man yàllaa ma defal xam-xam boo xam ni lu jiitu ma koy am amul ci mbindeefi yàlla yi ginnaaw rasulullaay ku ko am bi ma koy am amandoo mu ko kenn bi ma ko amee ba léegi bu ñëpp teewaatee ko kanam yàlla doo mën a joxoñ nit ni am na xam-xam bu mel ni bi sëñ Tuubaa amul ci àdduna allama nii laahuma ilman man yura xattu li wa li xayri lam li tax sëñ Tuubaa ñàkk nawle mooy dafa am relation bu piir bu mu am digganteem ak weer yi am ko digganteem ak bis yi nee na yombal xiyam bu ñëpp teewee weer yi ak bis yi dañuy toppali ko ay jëmm ñëw ba ci seen kanam borom ni leen ni suñ borom ñun de ñoo nekkoon adduna waaye sa jaam bii di Ahmadu loo mës a digle ci adduna def na ko mës a jaar ci lu mu tere suhóor yi wa ayyaam yi la wax xaddan sa sawahidu di kaw nii abdallahi wa huwa shahid loolu nag amul benn jàmm bu mel noonu suñu Blaat Mbàkke maam yi sëñ bii toog nee na la ma sëñ Tuubaa wax ma gis ko teg ci sama bët la ma wax te gisaguma ko laa gën a gëm ci loolu nee la ma sëñ Tuubaa wax ma gis ko lam ma wax te gisaguma ko laa gën a gëm ca loola te sëñ Tuubaa bu ko kenn doon xam sëñ Blaat xam ko sëñ Blaat bi may koy gëstu ci sëñ Basiiru Ture jarbaatam sëñ Basiiru Ture moo ne ma sëñ Blaat nee na keroog ba ñuy jullee sëñ Fallu maa ngi ci sàppe bi den rek doomi maam Thierno sëñ Bachir Touré moo ko wax nee na sëñ Abdou Lahad nee na ko bis bi ñuy jullee sëñ Fallu bi mu ñibbee ci boromam ñu koy jullee sàppe si ma taxaw maa ngi taxaw den rek doomi sëñ Fallu waaye sëñ Abdou Lahad nee na diggante boobu gis naa fi ci mbooloo moo xam ne bi ma feeñee jamono ba waxtu mosuma ko tëj bët te kenn du ci doomu aadama sëñ Abdou Lahad nee na ñu ma gis kenn du ci doomu aadama jàppoon naa nit ñaa ngi leen di gis waaye ndekete kenn gisu leen ndekete ñooñu ñooy jinne ya jaayante woon ak sëñ bi sëñ Moudou Moustapha ñu jaayante ñu jaayante moom bi sëñ demee ñooñu war a jaayante ak sëñ Blan sëñ keroog bi mu jullee sëñ ba noppi bi may dem ci kër gi nee na wallaahi naasim ci bundu kër gi laa fekk Rasulullah ak sëñ Tuubaa di may ndokkeel ci xelaat xam nga ni loolu lu mel ni moom amul sëñ ko mel ni moom soowu amuñu ko mel ni moom ñu ñuul ñi amuñu ku mel ni Sëñ Tuubaa ñu weex ñi amuñu ko wala ara fadilan fi nnaasi yusbihuhu wa ma uxaasi min al aqwaami min ahadi la wax amul kenn ci penk ku mel ni Sëñ Tuubaa soow amuñu ku mel ni Sëñ Tuubaa ñu weex ñi ku mel ni Sëñ Tuubaa fii ñu te ñu ñuul ñi amuñu ko ku dul man bu sama xel demee ci yàlla di nga tiit ndax donte seet na saala mas ngaa jàpp def ko naqar yàlla ba mu des man maa mësta def lu ma astaxfiral di fekk saqaaniya saaxi بما العيب والاستواء مال كل عيب كل ما عند عيب من رحمه من كسر كوت ماي كوي دونك مسما ديف عيب خمغا كو جامو يالا با اد سي درجه لا وخول محفوظ سن توبا نينا لا وخول محفوظ موي اليو جي يالا دوغال ليپ نينا بولا يالا ديمبلون با اد سي لا وخول محفوظ نينا فوفا يالا دا فا كريي ميند موي داو كيس لا ايكران ديجيتال يي نغا سي ادنا ديكو سن توبا دي واخ بوبا يوي سا خيوغول léeg-léeg nga dem ci magasin fekk ñu dafa écran digital mbind mi di daw muy bind siyee Daaru Xuddoos wala siyee Tuubaa wala loolu bu ko Sëñ Tuubaa di wax te jaalim la woon nee na boo demee lawul man foos alliwoo yàlla ja fa lañ bind sama réussir ni Ahmadou Bamba lu mu mas a def yàlla nangu na ko mësta jaar ci lu yàlla ten falaa yii la wax bi fadlillahi fii lawhihi jara bilaa mihra in doona max ne doona max ne wala xaw nee na sama réussir ca lawhul mahfuus ngay dem fekk ko fa ñu bind ca ni Ahmadou Bamba mission bi ko yàlla joxoon ci àdduna réussir na ko lu yàlla digal def na ko mës a jëf lu yàlla jëf. mbind ma di tourné di wër nga xam ne da ngay ñëw fekk ko fa boo ñëwee fekk ko fa boo taxee mu fekk la fa. moo tax suñu tubaab ñi xamuñu ko de Cheikh Saadou Abihi Cheikh Saadou Abihi sëtu yonent bu baax boobu bu daan bind leetar sëñ tubaab daan wax ni haasihi risaalatun min Cheikh Saadou Abihi ila Cheikh Ahmadou laanallahu man aqalahu lettre bii mi ngi bàyyi ko ci man Cheikh Saoudou Abi jëm ci Cheikh Ahmadou Bamba maa ngi ñaan ku bañ Sëñ Tuubaa yàlla na la yàlla ñaari ban nag laa koy bind wa sababu mujibuhu an laa tansaani wa an laa tansa ummata muhammadin huna wa xadda Sëñ Saoudou Abi nee na li may ñaan Sëñ Tuubaa mooy Cheikhul Khadim man bul ma fàtte te bul fàtte xeetu yonent bi alayhi salaatu wa salaam fii ñu nekk ci adduna ak alaxira ñu jëm moo tax sëñ Moussa Ka nee na ñii xamuñu sëñ bi de te xej ji yàlla tànn jiital leen sëñ Moussa Ka nee na ñoo ñoo xam sëñ Tuuba te xej ji yàlla fal xam nañ maqaamam ca xarbax ya ak mayam ya xam boromam ca wëllu ya ca xaw si sax fa diiwan ca xutbu ya ak ña daa wéet ak boromam ña xam yàlla ak ña xam yóneen ca baawan ba tey kenn jaaragul fa mu jaar boromam nam gën a ay murit te gën a jàpp sëñ bi تخمني أمور ناولة يا الله تبا كم كي كي كي كي أبرم مو ده سنجوا ني مكره داري باخي باخنا وايسين سام لا ينانا لك لك يا الله تان أولي جوكو مقام مو خمني ينان أولي دنيا أم ما دنيا أم كapacity خم مقام ما جب بدي كوا يوصل لي رب الجميل الباخي maa xaaba am akkaabiri subaax la suñ tubaa wax yàlla màgg la ci day boo xam ne wëllu yi jiitu woon ñu mag ña amuñu capacité xam nay gi na sab ku dumoo yii li hubbul xaddiim araw fardan na tuur ay rongoñ te sëñ tubaa tax man sëñ fallu farata laa ko jàppe waxee dañu bëgg ñuy teral tur yii ñoom la am maa ngi ci kàddu gi ak way ko mo ni jiitu gi ma jiitu gaay man maa toog leen maa jiitu gaay nee na ni ma ahmadu gaay yaa leen jiitu si waa yàlla wax maa jiitu de fetta bil baax yi ci turu yàlla gémmuñu yàlla laa déggee ni si ya bi xetta bil baax yi bi man maa jiitu gaay te wax ci xam nga an si wa inna nii abdul qadimun laa yëri man sama maqaama ku dul yàlla mu bind rek sama maqaama fàttali nga xamoo man béykat daa mas a toog mag ñi dañoo mas a toog ci njaareem di waxtaane diggante bu ak xawsu sëñ Masamba Mbàkke borom ñetti kaala ya ne nan bàyyi ba sëñ bi génn ñu laaj ko ko ne suut sëñ bi yooyu masaan am day mel ne suñu borom daan ko génnal leeral nesul sëñ Tuubaa fël ak yére yu weex yi mu yor daal di Masamba am na fere yu waxtaane ñu ni ko Masamba mu ko Mbàkke mu ne ko xut boo ëpp xaw su daraja Masamba li ko sëñ mu yóbbu bés boobu bu la neexee taxaw waat ne at mooma dootu ñàkk ndax boo demee ci Cheikh lu mu yor jox la sëñ Ibra nee na ma départ jóge boqatul moo baraka fekk Cheikh Ibra moo kër Cheikh ma sukk sama bëti woom ne ko bàyyi Cheikh Ibra ku baax ci yow nee na keroog laa xam ne sëñ Touba Cheikh Ibra ko gën nee laaj laaju ma sax mu la yoon dañu ana yaram mbay mu ne ko Fall maa ngi mu neexal la Ibnu waay mag ñi lu waay sëñ Ibnu nee ma téye nee na toog naa fa lu toll ci waxtu loo xam ne lu waay yor indil na ma ko ma téye nee na bi waxtu wi demee ba mat Cheikh Fall ni wax Ibnu nga ni lan ma ne ko sëñ Bamba de moo ne ma Ibnu dama wol ma Ibra Fall Cheikh Fall ni yaram may ku la ko dal di jàpp ba sell ni ñokkit jóg ni ko yaram may mu ne ko Fall mu ne ko dégg naa kaddu boo xam ne saa bu nee topp ci nopp buur yàlla daa war a yeesal njàppoo mooy sëñ Tuubaa nee dal di ñokket mag ñi topp ko mu jógee kër Cheikh jëm Boukhatoul Moubarak daa dox ko ci yoon wi sëñ bi nee na kaay wi sëñ gi ma ko waxoon mun na ko ci sensé mu dal ni way ana ibnu way neena bo man ci ginnaaw ma daw ñew mun ma ibnu gani mané ko señ Bamba mo ne ibnu wala wala ma Cheikh Rafal nee na Cheikh ni waji Bamba ka sem bu mu raw yaaram nam Ibra Faal Seex Ibra Faal ana soppay maam Seex Ibra Faal la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sëriñ bi nee na njàpp li Cheikh Ibrahima mujj njàpp am ci moom askanam bu sell googee waaye Serigne Saliou defar nañu fekk nañ ko fiy jox addee Serigne Saliou lu ñu am Serigne Saliou la jërëjëf kon jërëjëf mel ni kon suñ mbàkke nee na waxtu yu man na suñ mbàkke kat nee ñu ngi seetlu bu baax ah sëñ Mbacke nee na ma yàgg na ma fukki minute kon fukki minute yi kon nga ma koy waxtaan ci sëriñ Saliou ak maami sëriñ bii di borom Darou Mouhty faw ma waxtaanee maam Thierno bu ko defee ak sëriñ Saliou sëñ Saliou Alaaji Baaraam moom sëñ Fallu da koo dawalal juróom-ñaari ak oto bi mu demee ba koy yeewi sëñ Saliou dañu seigne bal waxal li nga bëgg ma ñaanal la ko suñu borom mu def seigne Bara neena mané ma ya ma gëna xam tanal ma neena seigne sëñ Saliou ko ma nga ñaan khilafa seigne touba gi ñu koy ndond di koy liggéeyal bis buy dem bay àdd ci sët yi yàlla nga doon sët bi njëkk a sët te bi nga koy ñaanal Alaaji Bara fukki nit ak benn mag nga ko ci sët yi te Alaaji Bara ñu ko toog xalifa sëñ Tuubaa ci mbolem sët moo tax sëñ Saliou moom dafa amoon taw la Cheikh Fall waxoon Cheikh Fall dane woon Massa Ma Ndiaye wax mu ne ko waaw mu ne ko a gaaw ak melax ni ko Massa Ma Ndiaye wax mu ne ko faal mu ne ko xel ku yar yar yi gën a gaaw Massa Ma Ndiaye wax mu ne ko waaw mu ne ko balu cartouche maa gën a gaaw Massa Ma Ndiaye wax mu ne ko Fall mu ne ko adduna ak àllaaxira mën naa ko wër ci ay ngolli sëñ Saliou nag loolu la def mooy la sëñ Tuubaa war na liggéey lépp ci diine l'islam jaare ko ci tarbiya jaare ko ci alxuraan jaare ko ci xam-xam loolu lépp daa mel da ko fay réservé woon am ku ko yor ku ko war a doxal te kooku mooy Serigne Saliou moo tax bi mu ñëwee li njëkk a wax mooy nan ma jox ndaw ñi ma def la sëñ Tuubaa doon def ca mag ña te mag ña kat xam ngeen ni Cheikh Ibrahima Fall ca la bokk sëñ Massamba Diouf Sam ca la bokk sëñ Jabat Ahmad Lo ca la bokk waaye sëñ Saliou dani la sëñ Tuubaa doon def ca mag ña dinaa ko def ci ndaw ñi muusum xele mun sol yàpp mag jamono sëñ Saliou la xew tey jii foo xool ci adduna mu am xam-xam te amub yar te am teggin man alxuraan ñëpp nangul ko soo ko ci biir ak ci biir daara sëñ lay génn ña wattu ba bind kaamil ñoo ëpp fopp ña ba mokkal la jàng ba ma sëkk ay ilimaan ñoo ëpp fopp mbàkke moo doy kéemaan moo sañ ci xambaan sañ ci ngor sañ ci jurul moo sañ ci mbokka ak lagan ba jàpp la kenn ku mel ni sëñ Saliou xam nga sëñ Tuubaa daa waxoon bayit boo xam ne da ko wax man ko dem nañ ko lii lii lii mënta ñàkk ndax daa bokk ci murid ki ko njëkk def lii muy def ki ko njëkk a def sëñ Ahmadou Maxtaar Kay la tudd ku njëkk a daanu ak jël ci yoonu murid ci Mbàkke Kajoor boobu lii kenn xamu ko suñ Tuubaa moo toog di waxtaan ci xaal ba yàgg mu yuuxu comme lii daal di jékki-jékki rek xaaj sëñ Masamba ni sëñ Tuubaa tey ñu ko delloo ci mbokkam ndax daa mel am xelam neexul boobu sëñ Masamba sax xamul luy dalu ni ko ko mbàcc mu ni kii li ko xeeñ ba tax mu def nii ci Rasulullah la gëjoon a xeeñin ba ci man mi est-ce que lii dafa bokk ci murid bi te sëñ Fallou nee na jooyal sëñ Tuubaa ni julli doone farata ay makka doon farata noonu la jooyal Sëñ Tuubaa doon farata ci lislaam sax bu dumoo hii li hubbil xadiimi Sëñ Fallu nee na arawu fardan man Sëñ Fallu gis naa ko muy farata man Cerno Ibra Faati commission bi mu am diggante nag Sëñ Tuubaa moom dong ko maa ngi kii xam nga Sëñ Tuubaa li tax mu yéeme bi mu nekkee ci tukki bi man Cerno nekk fii mu dénk ko njaboot bi maam no fu sëñ Tuubaa daan jullee ca Konaakiri fii la maam Thierno di nekk ci réew mi di ànd ma moom julli ko. Cheikh Bamba ne bu Thierno daan lekkaam lu fa daaru mar naan maa nga di laal man Bamba it ba mooy lekkaam bay kabbar Thierno ma dem maamuum ñaar ñi lay bëri te booba Cheikh Bamba nga woon Konaakiri te Thierno daa ko xamal Konaakiri. moo jur sëñ Mour aw Balla ak sëñ Cheikh aw Balla sëñ Cheikh aw Balla moo jur wuy jur kii sëñ Mor Ndiaye daal jébbalu ci moom. jërëjëf. sëñ Cheikh aw Balla woo ko di ko bësloo ay tànk ci bis bi. nee na bi mu bësee ba noppi mu ne ko ah Mor Ndiaye neel fan bi jóob mii de bëgg naa ci moom. mu ne ko doomi Ceerno jii tëdd nee na bëgg na Ceerno. nee na mu daal ne ko ah man kenn li ma jaaxal damaa jàpp ni xamaguma nee na bi mu nee xamaguma seen Cheikh Awa Balla daal tuddoon suul waaye bi mu nee xamaguma seen ba la Balla ni ñokket daan ne wax ji dinaa ci dugg daan ne ko ab sëriñ bu am taali bi ñëwee fekk ko ci lën mën lën damagu wax set ni ko jébbal naa la sama bopp adduna ak àllaaxira ko jógee jaar penk sëriñ bi jaar sow gisante waatul ba yow mal xiyam taaliba bi génn taaliba bi di jéggi siraat sëriñ bi gis ndëggul tànkam te xammi wu nee na sëriñ boobee mëtul sëriñ man nag loolu daluma jar doo ma jur sëñ Bamba ma yàlla moo tax sëñ Modou Awa Balla Diouf sëñ Modou Awa Balla Diouf miñ tudd sëñ Modou Awa Balla xam ngeen ne waykat ba nee bu jox ñu tubay mboolem li ñu doon wut lépp nee na ñu ngi ko jaare ci sëñ Modou Awa Balla ak sëñ Cheikh Awa Balla waaye keneen fi nekk ci di leen liggéey di leen jëfal jàmbaar yooyu sëñ Modou Awa Balla dif la bokk sëñ Cheikh Jaxate nag ci lay tëjee bu defee jox ñu ci topp ñu doxal sëñ seex Jaxate lay kenn ci diine lislaam yàlla yàlla yokk ay leeram waaye ñim defar ñim defar xam nga Ahmadu bi rek doy na ci misaal ñëpp ko nawloo ci lay te ñim defar moom muy moo ci a tuuti te lépp lu mu daan faj ci adduna bu ma saan nekk miwnu gee bari war na luy dox ci adduna loo xam ne duñ ko tàgg ba noppi da koo jëf te mosu koo doxee mosu koo wax mu bàyyi koo fi jërëjëf doomam toog di sëñ laay jaxate jërëjëf jërëjëf jërëjëf léegi li ñu soññi taalibe yëpp rek mooy rawatina waa miwnu ñu gën a jàppaat sëñ laay jaxate xam la nekkoon ci sëñ seex jaxate suñ Cheikh Diakhaté du jaahil daa tànn suñ laay ba xam ne mën na koo wuutu ci zahir ak ci baatin mu tànn ko teg ko fa mu wuutu ko lañ waxoon rek ci sëñ Mourou Moustapha bi bi sëñ Tuubaa bàyyi ko laay wax ci suñ laay Diakhaté nañu dabaat la ñu rawoon ca bàyyam jaam ju ndaway ju man ca kat fa laa yem ku fekkel ngóolool nga jox ko baaraam buñ ko lu lugul juñu ko gas ak xabru kon yàlla ñu yàlla defal ndànk defal nu xéwal ak sutura defal na barke ak bayre defal na saadatu dara yi maa ngi dellu di ñaanal sama xaritu bopp koo xam ni maa ngi giñ ci guddi gii ni du julli mukk di ñaanu ma ngir kóllëre bu yàlla boole woon suñ maraafa yàlla ñoo boole woon kóllëre xam ni man mënu ma koo misaal bañ naa ko ba ñu génne adduna ba léegi mosuma koo dugal stade ndax dafa am loo xam ne dañ ko doon dund maag moom te loolu nekk lu sincère loo xam ne dëgg la maa ngi ñaan bu dee guddi gii am nañ ci dara bu dee guddi gii li ci suñu borom wax lépp mi ngi ci ma ngi ñaan tey ci sama wet ñoo ko doon am di ko waajal bis bi ba ni may waxtaan see ba ni may ñaan maa ngi ñaan ci barke guddi gii yàlla tey ni guddi daan di ci waxtaane diine lislaam ak alxuraan ñëw na ngir xéewal bu ko yàlla di defal fa mu nekk ci ci barsax jërëjëf jërëjëf walla maa ngi lay nuyuwaat bu baax te di la ziare moom mii mooy sama sëriñ ndax ci magam laa yees la waaye mën naa ni sax relation bi ak moom ëmb boog sëñ bi ma jébbale ndax lu dugg ci dara te woo ma ni ma sëñ bi nangam nangam ma ni du ma def dara ci àdduna te woo ma ko wax ko li li war ci man lepp bi ma feeñee jamono ba legi bi ma jaamante mom lepp mom ko defal te fu ma nekk ci adduna fek na ma maa ngi ñaan li ma defal lepp lu waxtaan ci sëñ Tuubaa tan ko ci ñu yalla nañ ko bokk yalla nga dem ba li nga yene di jël sëñ Tuubaa lepp nga defal jot sa jëm ni def nga wala suñu mom yalla nako def sëñ Modou ma nga lay ñaanal bu baax baax bu la ziaré bu baax sëñ la sa maam ja ñun mo suñu soppi mo suñu lepp ci kóllëre googu yi fas nañ ko fasante ak yow ñooy ñaan kàddu yi mu jëlee Touba ak fii daal yàlla bu ci dara yàlla bu ci dara neen yàlla na ko fii misaal nga xam ne ñoo nekk Tëngéej ko sëñ Mbaye ak sëñ Mbacke Ndiaye ak siyaare sëñ Dara Dieng nga xam ne maa ngi benn lañ sëñ Xaadim Ngom koy siyaare bu baax sëñ Xaadim seen ak sëñ Mourtala bu ko defee comme temps bi daa xat damay jox ak rek bu ko mu tëj bu fekkee ni temps bi mat na ko tamit sëñ Mourtala seen xasaay yi nii du ko mën a jàng su defee ñu jox ko mu mu barkeel bu fekkee ni xaj na ci balaa suñu xatam ak xasaay ñëw. sëñ Ahmadou jërëjëf sëñ Dame Gueye mi maa ngi koy siyaare